tey nag l'invité du jour dañu nekk ci ponk bu am solo ñu fas yéene jëm ci li nga xam ne moo di guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la suñu borom njëkk a gàmm ci moom ni ko inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ànd ak ki malaakaam kum képp koo xam ni rek sofu nga ci sunu borom ak ki malaakaam li mu wax ci Seydina Muhammad di jëmmal guddi gi te di ko màggal wareef la tolluwaay la ba taxna tay dañuy dalal suñu wa kër maam Cheikh Ahmad Baro jigen ni makoy koy jigen mam maam as dem ba yoro ëmb rek ma ca salum jol Fatim Toba astama ca beler medun borom kassas di ñaanan Serigne Munir al Khalif yalla sam ko bayiko fi ba ci kanam kanam ci barke sayidina Mouhamad ak njabotam gi nga xamni ni uuf na leen ñepp ñepp kenn ku ci nek rek fa nga nek ñu la fay fek di la jox sa way di la nuyu di la ziar ci weer wi nga xamni ni na ci weer wi nga moy wi gën ci ndax moom mooy weeruk Seydina Muhammad ci jamono ji tembe muy ci weeruk safar ci la ki nga xam ni moo di euh, yonenti yàlla Isa ñëw ziar si ki nga xam ni moo di way juru Seydina Muhammad muy euh, ci weeruk safar bu ñu jugee ci safar nag dañuy jëm ci li nga xam ni moo di euh, weeru gàmm ma dalal ki nga xam ni moo di Serigne Cheikh Ahmed sàll Diegane nekk ci li nga xam ni moo di de communication sunu kër maam Cheikh Ahmed Baro Diegane ñu fas yéene seq ak moom laaj ak tontu jëmale ko ci bés bi waajtaayu bés bi ak tolluwaayu bés bi bu ko defee xam naa dama koy bàyyi mu nuyoo présenté wu bu ko defee ñu wéyal waxtaan wi Cheikh Ahmed ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa moolana muhammadin salallahu alayhi wa sallam amma baada ayuha almushahidun nuxayikum جميعا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو لين دي نيو بو باخ دي لين زياره دي لين بالو حق دي جيتال تي نيو بي تبارك الله كيغا خامني مو ني في دالال تي جي تبارك الله دي سونو راك دي سونو ليب دي عبد الله سي بوكو تي كيرغي بوكو تي نجابوت دي لال نجابوت مام بابكر سك kon bu ñu dalalee fii nga xamante bi ne tabarakallah mooy seen 24 ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye di nuyu di ziyaara bu baax a baax a baax directeur général bi nga xamante bi ne mooy sunu frère Ndagga Njigéen moom itam te ko ñaanal yàlla mhm. yàlla ko yàlla jàppale bu baax mhm. sëriñ baa ngi koy nuyu ndax taxawaayam ci kër gi mhm. mu koy sant mu koy gërëm ñun waa cellule communication ñu koy sant di ko gërëm mhm. la delloowaat kàddu gi macha allah am na solo bu baax a baax a baax di nuyuwaale fi nga xam ni fi nga daanale muy monsieur le PDG NJ di ko di ko di ko ziar bu baax a baax a baax euh, Olof Ndiaye danaan defoon nañ ko daaw fekke déwén mu jik ñu ñu gis ni nga xam ni moo di euh, yokkute gi nga xam ni daaw bi ñu ko liggéeyee jëmale ko ci gàmm gi gis nañ ci ak tolluwaay ak yokkute gu am solo ren ndekk ñu jub li nga xam ni moo di gàmmu guddik Seydina Muhammad daaw romb nañ ko ren yan système moom la ñuy teg daaw gis nañ satisfaction bi nga xam ne am nañ ko ci ren nan lañu ñu nar a commencé li nga xam ni moo di préparation gàmmu alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf laaj laaj nga laaj bu am solo mhm. ndax euh, ñoo ngi fi dikkee ci diggalu Serigne Mouniru xalifa bi mu leen di nuyu mhm. ñu ngi koy euh, ñaanal yàlla yàlla dolli ko fi bàyyi moo ki rakkam mhm. suñu bàyyi Abdou Salam jigéen mhm. suñu bàyyi Ahmed Cissé jigéen mi nga xam ne mooy porte parole kër gi mhm. wàccit tabaarakallaahu ci ki nga xam ne mooy imaam Ahmed Baro nga xam ne guddi gi yëpp bu ñu defaree ba mu jekk mooy toog wax ñu kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di di ziyaara njabootu Alaaji Ahmadu Baro bi yëpp macha ñu Ousseynou mi nga xam ne nii tabarkàlla mag ñi dañoo yëkkati li nga xam ne mooy commité d'organisation wu gàmmu yépp teg ko ci loxoom. Mm-hmm. mu di ko doxal doxal bu rafet. Mm-hmm. yaatal ko jël ay njabootam dugal ci biir. Mm-hmm. tabaarakallaahu moom itam mu ngi sant bu baax a baax waa Sen 24 ndax euh, partenaire bi ñu amante ak ñun. waa gàmmu gi. di sonn ci ñun. seen plateau yi ngeen di def invitation yi ngeen di def. di ñu gunge tamit avant pendant et après. Mhm. loolu itam Serigne Ousseynou mu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. Mhm. ñun waa cellule communication yi di leen ci sant di leen ci gërëm. Mhm. waaye di nuyu tamit ñi nga xam ne ñëpp ala jëmmat borom moo jur seen baay. kër maam Sidi Njëgën. tabaarakalaaw sunu baay asbaru Njëgën. ñu koy nuyu di ko ziyaara itam. ko ndokkeel di nuyu di ziyaara itam sunu baay Amadou Yoro Njëgën mi nga xam ne kër maam Cheikh Omar Njëgën moo fay mag. ndax sunu bàyyi bi nga xamante bi ne moo di tabaarakallaahu sëñ Ahmed Ndiéguène mooy coordinateur bi topp ci sëñ Ousseynou ndax sëñ Ousseynou mooy président bi kon ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyu itam sunu waa kër maam Ousmane Ndiéguène sëriñ Moussa nekk ca kaw moo jaboo tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu di ziyaara kër maam Abdoul Wahab Ndiéguène sëriñ Moussa Ndiéguène nekk fa di nuyu di ziyaare itam sama kër maam Assane Ndiéguène Ibrahima Njëgën mooy mag waaye sëriñ Malick Njëgën moom la jël lépp teg ko ci loxoom. Mhm. kër maam Sidi itam tabaarakallaahu comme ni ma ko waxee El Hadj Modou Baro. Mhm. ak la nga xam mooy Cheikh Oumar. sëñ Ba Cheikh Oumar ñu leen di nuyu ñoom it di leen mhm. di nuyu bu baax Serigne tabaarakallaahu Sidi Njëgën. moom itam di rakk ci Serigne Mounirou. di ko nuyu moom itam di ko ziyaara bu baax a baax a baax. wante di nuyu tamit kër maam Ousseynou Njëgën. ak waa kër Moussa Xorjo nga xamante bi ne tabaarakallaahu ñoom bàyyi gool njigéen ak ñun ñëpp seen seen i njaboot mm-hmm. bàyyi ma njigéen ñii mm-hmm. tabaarakallaahu ñooñu ñëpp ci njaboot gi lañ te ay kilifa lañu mm-hmm. seen njaboot a ngi fi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara di leen ñaan yàlla bu baax a baax a baax di nuyu tamit kër maam mu niru njigéen waaw suñu bàjjen a fa nekk ay njabootam dañuy ñëw ci li nga xam ñoom lébu ak seen rakk ñoom dañuy ñëw ci li nga xamante bi ne moom mooy réunion yëpp ñoom itam. njabootu Alaaji Modou Baro lañ. maam Abdoulaye Njëgën. te maam Ousseynou Njëgën tabaarakallaahu maître Njëgën Ibrahima sunu baay. moo fa nekk moom it ñu ngi koy nuyu du ko ziyaara. di nuyu jigéen ñi ñëpp rek. taaliba yi mu xaddam yi ñëpp ndax gàmmu gàmmu ñëpp la. te bu jotee ñoom ñëpp dañuy takkaayu nekk ci gannaaw xalifa bi. mu Mouniru lu mu wax bu nee wii ñu ne wii bu nee noo ñu ne non. bu nee wii noo gaa yi ne wii noo. loolu nag boo ko amee tabaarakallaahu dangay sant yàlla loolu ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla gën a saxal bu baax a baax a baax a baax barke yonent bi salaay salaam ñu ci wàccaay yi nag ñu ngi ci wàccaa yi mhm. tabaarakallaahu di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm mhm. sëriñ baa ngi yëgal nag taalibe yi ak mbokk yi yëpp taxawaay yi nga xam ne nii moom la bëggoon ñu di ko taxawu nañu ca taxaw mhm. comité bi nag ñu ngi ci taxaw muy sëriñ Ousseynou ñu di ko sant bu baax a a baax def nañ ay réunion nag tabaarakallaahu yu bari yoo xamante bi ne yëpp pour jël matuwaayu li nga xamante bi ne mooy gàmmu gi rek ci lañ ko jëfe daal macha allah macha allah solo bu baax a baax a baax ndax ku wax gàmm wax préparation hmm. ku wax gàmm wax installation hmm. wax gàmm wax li nga xam ni modi di cellule de communication parce que bu ñëpp ñoŋee hmm. euh, gannaaw yàlla ñoom la mais dañuy delluwaat gannaaw tuuti ci ñi nga xam ne ñoo dee téléspectateurs yi seetaan la seen 24 TV yi ñu dëgtal leen lenn ci ki nga xam ni moo di Cheikh Ahmed Baro Ndiéguène mu jugee Kasaas fi mu jaar ba tey yegg si Thiès ba samp tey lu ni mel ci biir kër maam El waaw Alaaji Ahmed Baro hmm. tabaarakallaahu ñëpp moom lañu xam hmm. ndax bàyyam mu ngi tudd Medoune Jégéen Medoune Jégéen waaw maam Medoune Jégéen hmm. Medoune Jégéen bàyyam mu ngi tudd Maat Maat Maat Njégéen Maat moo jur Medoune Medoune jur Alaaji Modou Baro boo juróom wu jigéen Faatumata Ndaw la Faatumata Ndaw moom bëlëm ndukkumaan Ndaw aram faxa tabaarakallaahu mooy bàyyam mu kon moom ci wàllu ndeyam moom mhm. Alaaji Ahmad Baro buur la mhm. ci wàllu bàyyam nag ay taalibe la ñu mos a doon mhm. waaw tabaarakallaahu ndax jàngale alxuraan la ñu xam ci Médoune tarbiya nit ñi taskiya leen loolu la ñu xamit ci maat ndax boo jëlee wàccuwaayu ba mu sori tabaarakallaahu giri maxa la ñu jaar gannaaw màkka ñëw fi ñu ñëw yëpp euh, kasaas googu la nag fa la ñu denc Médoune fan lañ denc moo tax ba ñu bëggee xam nag moomu la mhm. bàmmeel ba fan lañ nekk. Mhm. guddi lañ ko taawu. Ah. bu guddi jotee daal mag ñi tabaarakallaahu toog di xool boobu alaaji man jegeen mu ngi dund. Mhm. yabal fa ñoom maam Abdou Aziz jegeen Serigne Dame ak ñi daan àndal ñëpp. waaye guddi gi dañuy gis ni tabaarakallaahu bu guddi gi jotee leer gi day jàpp jëm asamaan. ndeysaan leer bi. fa ko denc leer goo xam ne ni dafa mel ni. projet bu mag. waaw fan yañ fa nekk yëpp di def gëstu yi fa ñu toog ndax xamoon nañ bërëb bi ak yëpp mhm. waaye comme dafa yàgg dañu toog taba gi xam nañ ko xam nañ guy gi fi mu nekkoon fa Cheikh joxe woon tamit médu wetu salaatu fatiha bi yëpp xam nañ ko xam nañ ko te ci wetam la mag ñu waxoon ne foofu lañ ko denc foofu lañ ko denc mais ñoom xamuñu woon exact bëgg a xam nag kii bi góor gi yabal leen ci ah. ndigal alaaji mën jegéen ñu dem nag bu ñu demee am na nu ñuy jóge ñoom mhm. waaw am na nu ñuy jóge mhm. ba ñu demee ànd ña fa nekk doon ay taalibe dëkk ca dëkk ba tabaarakallaahu situé li nga xamante bi ne mooy bàmmeel bi moo tax waa ji di wax loolu soo demee kasaas ba nga gis leer ga jolli jëm asamaan jëm asamaan waaw waaw kon moom Médoune foofu lañ ko denc moo jur nag alaaji mut baro mhm. alaaji mut baro nag amoon na ay jaam jaamu baayam yi mhm. wax mag ñi nee nañu benn bis dañ ko doon jëw ndax par rapport ak baayam mhm. ni mu baaxee te yàlla may ko nopp bu gudd ndax moom boo koy jëw da koy da koy da koy dégg. da koy dégg. koy dégg ak foo mën a ne. Mm-hmm. boo ko dee jëw da koy dégg. ñaareel bi itam yàlla defal ko loo xam ne ni loo mën a tollu boo toogee ci kanamam bu la xoolee bu la xoolee ci bëtam yooyu le mm-hmm. ah dina xam cër bi la suñu borom may. sama maam nee na daan na gis moom Alaaji Ahmed Boro ci doomu aadama gisin woo xamante bii nii ci wàllu bàttin mm-hmm. ni ngay defee maanaam butéel bu weex. Mm-hmm. def ci ndox tàbbal ci këriñ mm-hmm. ni muy gisee këriñ bi mu transfert loolu lay gisee cër bi la suñu borom may ndeysaan waaw kon medul bi jaamu baayam bi di ko di ko jëw par rapport ak baayam ni mu baaxee ak bëri xam-xam mm-hmm. ndax maam medul def na lu nekk ndeysaan def na lu nekk foofu waaw waaye nag comme bi nga xam ni def comparaison alaaji mat boro dégg loolu dafa ñëw nawet bi jot mu bay jël dugubam sàq mi mu duy ko duy gerte Mm-hmm. daa di euh, dagg ay xëddam xaddaat néegu ndeyam permis mu defar ko dafa yëpp mm-hmm. ñëw na ndeyam nag dama fas yéene laxas dolli ji xam-xam mm-hmm. baa ma faatoo réew moo xam ne toq toq rangooñ dina fa dina fa dina fa néew ndax ñàkk guñ ma fa ñàkk xam ndeysaan ndax nit fu mu dee foo xam ne xamuñu ko ñu koy jooy du bari ñu koy jooy du bari damay laxas ndeysaan ci la ko ndeyam na ko kon li ngay def moo di tabaarakallaahu góor gi Birame Cissé sa ndijaay la mu nga tëngéej te borom xam-xam la ci kullu fan yépp mhm. na nga dal ca moom dem ca moom loola war a alaji mat bodo jóge ak fi mu jaar yëpp bëri na mhm. ba ñëw tëngéej fekk ko góor ga Birame Cissé kon avant muy yegg si Thiès tëngéej la njëkk a dal tëngéej la wàcc mhm. tëngéej la wàcc bi mu ñëwee la góor gi Birame Cissé ci euh, wàcc ci bato bi dafa dafa gudd li fi jox ci diggante bi bu mu tasaloon ak yoon wa yëpp nii ak ñi mu àndaloon waaw bi mu ñëwee mais góor gi Birane Cissé ah damaa ñëw sama waajur moom fi yebal mu a ko lu la tax a jóg mu ne ko sàkku jiwaat xam-xam dolli li ma am. sàkku jiwaat xam-xam. dolli euh, mhm. li ma am waaw sàkku ci li am. ndax booba li mu war a xam yépp xam na ko. Mhm. waaye nag xam-xam dafa yàgg. waaw xam mu ñëw nag am téere yoo xamante bi ne soxla na ko pour mën ko fi mën a yeggale. Mhm. góor gi Birane na ko fii loo fi soxla ci xeetu xam-xamu jàng yépp am na fi waaye man it li ma lay warloo rek moo di. saa yoo xamante bii ne tabaarakallaahu li ñuy jëfandikoo ci njaboot gi fii ci kër gi dugub lay doon te dugubu suuna lay bàyyi ko cere lay doon waaye cere ji ci dugubu suuna lay bàyyi ko waaw loolu laa jëfandikoo te doon cerey ganaar loolu moom rek laa la teg rajo mut baroon na ko ci jamono boobu loolu dinaa ko waraloo te duma ko ñaan duma ko yelwaani te dinaa ko liggéey nekk ak moom noonu ak góor ga ba góor gi biraan nag dem Makka bi mu dee dem màkk nag dafa am lu mu doon def muy xalwa yu mu dugg gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko di nga dikk waaye nag boo ñëwee fi ngay des dootoo dellu mu ne sama maam nag boo ma gisatul na nga yeggale sa tarbiya ci Chérif Sidou Mouhamad ndeysaan Chérif Sidou Mouhamad boobu moo fi nekkoon deret yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne mag ñëpp nangu nañ ni kii moom surtout yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo jur Abdoul Aziz Mouhamad moo jur Fatima Mouhamad Chérif Sidi moomu moom la maam El Hadj Modou Baro tudde maam Sidi Njëgeen. maam Sidi Njëgeen. Chérif Mouhamad moomu jur na doom bu jigéen bu góor bu tudd Abdoul Aziz Mouhamad moom la ñu tudde maam Abdou Aziz mi caatu El Hadj Modou Baro. ndeysaan sama maam. Mhm. looloo waral tabaarakallaahu mu nekk ak Sidi Mouhamad ba Chérif Sidi Mouhamad nag moo na ko sa mbir fa muy tàkki jee. Mhm. mooy Thiès foofu la sa mission nekk. ndeysaan sa maam Rasulaay ne na nga ñëw Thiès. mu ñëw dal fii ci côté gendarmerie bii ngay jàkkaarloo. gendarmerie bu ngent bi waaw ngent bii. Mhm. xam nga boo nee ngent mooy ngent ba sama maam dafaa jóge dafaa jóge mhm. ñëw kër Mama Laaji loolu tax ñu ne ngent ba ñu ne ngent. Mhm. ndax foofu la njëkk a samp jàkka fa la njëkk samp daara. di fa jàngale di nodd di jaamu yàlla ba yàlla àtte law commandant bi tamit di ko ñaan na ko bu fekkoonte bii ne daal mën na ko dimbali xaw a sori ndax nodd gi moom daf koy tiital ndax kaddu yàlla la dafay tiital tamit soxnaam ak i doomam mm-hmm. mënuñu nelaw ndax kàddu gi dafa dafa rëy diis diis ñoom mm-hmm. mm-hmm. ci guddi googu la ko yonent bi feeñu na ko man sax bërëb bii waxuma ko bërëb bii ca kanam la ca kanam la sama maam ñëw ba fii tey jii fii fii ngeen def seen télé bi uh-huh. ci doodaan bii mm-hmm. am na guy gu mag gu fi nekkoon mama laa mën jegéen nee na sama baay bi mu fi wàccee def fi ay kurtu kurtam jinne yi suliku ci ci kanamu jumaa ji fii ci doodaan bi mm-hmm. nee na mu mu mu jóg avancé ñëw ba ci guy gi comme guy gi la ko yonent bi joxoon euh, euh, repère mu continuer ba ci guy gi kan moom alaaji mm-hmm. def fa ay kuttu kuttam mm-hmm. def ñeent fukki euh, sayfi yu ak benn mm-hmm. ci benn jotaay boo xamante bi ne ci 4 point 4 yi la ko def ba mu xëyee sànqaleñ sama maam nee na sànqaleñ sax doxul ci kaw fa mu fa mu ko si woon mu xam ne nag fii mooy bërëb bi mu tabax fi zaawiyam bii nga xam ne moo fi jiitu ci zaawiya yi kon 1885 la fi Alaaji Modou Baro ñëw. 1885. Mm-hmm. waaw ci la samp kër Maam Alaaji ay gaynde fi nekkoon ay tene. Mm-hmm. ay bukki. Mm-hmm. lëndëm ak i jaan ak lépp. mu gor ko dogot ko defar ko taxawal fi li nga xamante bii ne fi la taxaw. ànd ko ak mag ñu baax ñoo xam ne nii taax kaw la ñu nekkoon. dégg nga ñii nekkoon jaxaw. ñii gannaaw yoonu saxaar doon ay taalibe takku. gis ko bëgg ko ànd ak moom mhm. mu ànd fekki nit yoo xamante bi ne tabaarakallaahu ñoom maam Amar Ndiaye mhm. nga xamante bi ne démb lañu ak ñoom itam mhm. ñëw fii ci kër Mama Laaji kon nag di fi jàngale di fi di fi di fi julli di fi def yëpp ñu fi def ci at moomu am ñu ne ba mu sampee ci at moomu la tàmbalee gàmmu ñu ne sa déwén se la ci at ma mu samp waaw muy 1885 1885 waaw ñii ne 1885 euh, ca déwén sa ci la tàmbale ñii ne déedéet 1885 la Alaaji Mat Boro tàmbale di gàmmu gàmmu gi ci façon ba mu koy gàmmee ci façon ba koy gàmm ndax moom ni mu daan gàmmoo moo daan dañ daan a jël euh, ñi nga xam ne mooy fóore yi kaang yi ñu mm-hmm. mokkal alxuraan mm-hmm. taalibe yëpp ku mokkal di nga tari euh, maanaam kaamil bi bu bët set loolu lañ koy def kaa ngi dañuy toog di jàng mm-hmm. baqara ba minal jinnati wan naas ñi nga xam ne ibnu muayab dañ ko mokal ci way ñom yoy lañu way di tagg yonent bi di tagg yonent bi waaw ñu yor sayf yi ñu ngi dóor xisbul bahar yi ñu ngi dóor mughni yi ñu ngi dóor latif yi ñu ngi dóor han yasin yi ñu ngi dóor non lañ ko jàpp gor gu tok momit yor kurusam tok ci ci ci piliyaan bi gars di tagg yonent bi tabarakallah ni wax ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam non la ko don def diko def ba mujj gi courant bi mag ñu nee nañ dañ ko daan jële ji base ca tubaab ya ca colon ya mhm. di ko laxas ci guy yi ba mu yegg si mu jigi ñu di ko jële si chemin de fer bi chemin de fer taxawee di ko fi laxas ba mu ñëw mhm. ko ñu am courant tabarakallaa ñuy gàmmu-gàmmu gi mhm. mu togg nag ay ay ñam def ay cere def ay bëy di ay xar du ko def noonu noonu la ko daan def moom alaaji Amadou Baro ba doomam yi tabarakallaa ñëw taxaw jël ko taxaw taxawaay bu rafet ñoom itam propager li nga xamante bi ne mooy mooy liggéey bi mhm. muy alaaji man jigéen ak ki nga xamante bi ne ñooy ay rakkam topp ci gannaawam ñoom maam Sidi Njëgën maam Ousseynou Njëgën mhm. ñoom ñëpp topp ci gannaawam maam Cheikh Omar Njëgën mhm. ah, ñoom ñëpp topp ci gannaawam ba tey tabaarakallaahu flambeau bi di dox di dox ba alaaji mën jigéen bi mu fi jugee ñu teg ko ci loxo sëñ mu nii gàmm gaa ngi noonu gàmm gaa ngi noonu tabarkalaaw doon gàmm goo xam ne nag def naa ni moo mag ci gàmmu Cheikhu Tidiane yi mhm. allahu parce que bu ñu koy bu ñu koy bu ñu koy euh, calculer ci at mhm. war na dugg cent cinquante cinq ans jëm kaw. waaw wala mu teg sax. waaw waaw waaw dina teg sax. waaw waaw ñii cent cinquante cinq ñii cent. waaw cent cent cinquante six cent cinquante sept. waaw cent ndax mille huit cent quatre vingt cinq. waaw mille huit cent quatre vingt cinq ba deux mille deux mille vingt trois ba deux mille deux mille ñu ngi ci deux mille vingt trois ba waaw waaw daanaka cent cinquante cinq ans yi ah, teg na. teg na kon mu ngi noonu teg na sànq nga wax wax ju am solo muy euh, fi mu jugee ba fi mu yegg si tey muy. Euh, jumaa ji nga xam ni taxawal na ko mu nekkoon fii tey ñu gis njabootam muy waa seen 24 TV fa mu taxawoon tey njabootam ñëw samp fab télé mhm. loolu du hasard mukk ci àdduna waaw loolu du hasard mhm. ndax ki ko fi taxawal surtout Ousmane Ndiéguène la maam Ousmane Ndiéguène mhm. te maam Ousmane Ndiéguène doomu Alaaji Modou Baro la rakku Alaaji Ahmad Ndiéguène la nanguloon ko lool nekk ci wetam tabarakallaahu doon borom xikma kon su sëtam ñëwee du def loo xamante bi ne day wane visibilité kër maamam indi ko ba ci kanamu jumaa ji nga xamante bi ne maamam alaaji mën jigéen moo ko rëdd moo ko rëdd moo ko tabax kon loolu laa xarwa day firi lu bare bare bare dañuy ñaanal seen 24 bi yàlla na sori amiin yaa rabbal comme ni sooroor bii soree amiin ñëpp dégg ko tabaarakallaahu mu doon chaîne bu mag ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam macha allah am na solo bu baax a baax a baax léegi bu ko defee dañuy dugg dañuy dugg ci euh, ci préparation gàmmu gi ñi nga xam ni yéen waa cellule de communication bi. Hmm. daaw gis nañ euh, sànq wax naa ko bi may soog a ubbi satisfaction bi nga xam ni am nañ ko muy côté organisation beeg lépp lépp mënoo ci génn li nga xam ni moo di cellule bi ndax liggéey bi bu yembee ba yemb. ci ñoom lay jaar. Oh. ñu gis ni cellule de communication bi large na large boo xam ne tey jii euh, du ma ni mën nañoo détailler lépp mais du ñàkk ñu jël ci ay pàcc daat koy oh. tooge oh. daat ci jéem a waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy déglu la Sen 24 TV. Mm-hmm. waaw cellule de communication. Mm-hmm. Euh, communication day lépp. Mm-hmm. même yàlla communication la joxoon yonent bi. waaw waaw. Ah. mooy communiqueur bi gën a mag. mag oui. que dafa xam ni ñuy waxee xam fi muy waxee. xam li muy wax. xam degré de compréhension ñi li nga xamante bi ne ñi muy wax foofu la ñu toll. foofu la ñu toll surtout loolu. parce que loolu mooy li gën a am solo. c'est hyper important. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même yàlla daf ko doon wax ne ko tabaarakallaahu yonent bi daan wax saxaaba yi bu leen wax ak bu leen wax ak gars yi bu ngeen leen bousculer.

بالحكمة وموعظة الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن waaw booy woo nit ñi da nga leen di woo ci diplomatie woo leen tabaarakallaahu ci ndànk ak dal ndax loolu moom mooy waral tabaarakallaahu nga mën leen a am moo tax communication ci kër dafa am doole puisque mooy woon visibilité kër gi waaw waaw ndax këru diine goo fi gis dafa mel ni tabaarakallaahu xeer wu nekk ci biir pax li koy valoriser li koy génne lii wone liggéeyu mag ñooñoo fa nekk communication koy def donc loolu lañ ñu jox muy loo xamante bi ne lu ko gën amul ñu war ci jaamu yàlla ñuy sant mag ñi ci loolu tàmbali ko ci sëriñ mu niiroo ko rakkam yëpp ba yegg ci sëriñ Ousseynou mi nga ne ñoo porté seen choix jëmee ko ci ñun yaakaar ne bu ñu ñëwee dinañ ko mën jëme ci kanam ndaxte am na ku fi nekkoon te yor ko mu sëñ Ibrahima Habib Diéguène yàlla yàlla doole leeram mu daan ca dooleem wax ca lam ca man def ca lam ca man lu war def taxaw ci def fondement bi génn plan bi yëpp man may ñëw rek def continuité waaw kon communication bi moo tax ñun ñu def ko cellule de communication jël ci ay borom xam-xam ci wàllu

am na fi. Ah. bu dee tukkulóor am na fi am na ay plateau ak émission yoo xamante bi ne dañ koy def ci séeréer. Mhm. di ko def ci li nga xamante bi ne moom moo di euh, euh, euh, wolof. Mhm. di ko def ci tukkulóor même ci ñaanu Maam Alaaji yi am na plateau yu bari yoo xamante bi ne yii ci pulaar lañ ko def yii ci séeréer lañ ko def. Mhm. yii ci tubaab lañ ko def. ba ci kénkeliba bu ñu invité dañuy jël ci njaboot gi ñu dem at mu njëkk mi. sëñ Mortala Ndiéguène moom laa jël yabal ko Kinkeliba mhm. at mi ci des ma jël Cheikh Abdoulaye Dieye docteur Abdoulaye Dieye mhm. yóbbu fa donc noonu la ñu koy doxale kon cellule de communication bu ñu ko waxee mhm. réflexion yi ngi ci biir ak yëpp dañuy toog di waxtaan oustaz yi fi mu toll nii war naa leen a woo ñun ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan pour euh, gàmmu gi maanaam li nga xamante bi ne moo jëm ci plateau rajo yi plateau télé yi ak burdu yi nu ngi koy defee ba dara du sooxe ñëpp dem ni ñu war a demee. Mm. ku demit taxaw taxawaay bi nga xamante bii ni taxawaayu ambassadeur ga ci kër gi. Mm. loolu incha allahu cellule de communication loolu la ñu nekk. Mm-hmm. nekkaat nañ ci tamit ci biir cellule yi xam nga ni gàmmu gi dafa am président organisation mu sëriñ sëriñ Njëgën. coordinateur bi moom mooy suñu baay tabaarakallaahu amet Njëgën. Mm-hmm. waaye ci biir dafa may pàcc yu bari. ay pàcc yoo xam ne am na ñu ko ci jagleel. waaw waaw xam am côté électricité ñi nga xam ne ñoo yor courant bi Serigne Doudou Ndiéguène la ko jox ak ki nga xamante bii nag mooy Souleymane Wade lépp lu jëm ci courant mhm. extension courant ak luy wax ci ñoom ñoom ñoo koy gérer projet yi ñoom ñoo koy tëral ñoom ñoo koy wax mhm. ñoom ñooy calculer ni mu war a jaaree yépp mhm. sëriñ bi da koo teg ci seen loxo teg ko ci loxo sëriñ Ousseynou sëriñ Ousseynou teg ko ci seen loxo ñu ñëw di doxal liggéey bu mucc ayib kooku bëgg naa ñoom di ngeen leen dalal incha allahu incha allah ndax incha allahu bu soobee yàlla Souleymane suba émission bi fi am ñoom ñooñu ak sëñ Makke ak waa hygiène ñooñu mënuñoo xaar dinañ leen dalal ndax duudu yaram wi dafa xaw a naqari tuuti mais du tee bu ñu paree moom incha allahu dina dina dina dal dina di ngeen ko dalal am na tamit comité boo xamante bi ne cellule boo xamante bi ne nii cellule santé la santé surtout parce que dañuy gis ni fu nek le nit di jóge di ñëw té tamit gis nañ ni gamu gi day tombeek li nga xamni ni moo di nawet nawet bu ñëwé mom paludisme yeeg yoy non ci xaw bari waaw xam nga day am tout temps mhm. consultation gratuite gratuite oui waaw day am mhm. Serigne Cheikh Fadel Diegane mhm. ak euh, euh, Serigne Cheikh Tidiane Diegane muy Cheikh Kane Diegane ñooñu ñom lañu jox walu santé gis nga lu jëm ci poste de santé bi lu jëm ci yor nit ñi fi ak wàllu hôpital bi ak lu jëm ci gàmmu gi lépp ci wàllu santé tey jii bu ñuy def suñu réunion yi xam naa di nga ci dikk réunion yi nga xam dañ koy amal te kilifa yi ñooñu waree intervenir li ñuy xaatim ci këyit bi di ko teg seen loxo Fadel ci wàllu santé ak Cheikh Tidiane Ndiéguène muy Cheikh ñoom ñoo koy def am na vole boo xamante bi ne itam assainissement la mhm. assainissement bu ñu ko tuddee mhm. muy canalisation yi waa ONAS waa ak seen eau. Mm-hmm. ak SONES. Mm-hmm. muy wàllu ndox mi. muy wàllu ndox mi surtout loolu. ak UCG. Mm-hmm. muy wàllu mbalit mi gis nga yooyu Macky. ak Fadel ñoo yor maanaam bu fekkee UCG la Fadel a nga ca. waaye Macky moo yor li ci des. wàllu ndox meeg ONAS ak yooyu yëpp volet boobu lu ci jëm mhm. ci extension yi nga xamante bii ne moom lay def ak branchement sociaux yi am mhm. yëpp tabaarakallaahu mhm. ci durant gàmmu gi ak taalibe yi ak mbokk jullit yi loolu yi tamit tabaarakallaahu ci loxo sëriñ Màkki Njigéen fa la nekk am na volet bi nga xamante bi ne tabaarakallaahu mooy gétt bi wàllu nag yi ah wàllu sàlleen yi ak mbóojeen yi mu ngoog <laughs> kooku euh, alaaji alaaji Mamadou Mbuub bu wax mbuuba yàlla yàlla dolli leeram amiin yaa rabbal moom la ko sëriñ bi tegoon ci loxoom mu ci di koo xamante bi ne gaynde la ci yàlla atte mu wuy ji boromam yàlla na ko yàlla xare aljanna ñu jël doomam wuttal ci digg gannaawam ndeysaan muy baro ngi jàng nekk université Gaston Berger waaye teewul réunion yi mu war a ñëw yëpp sëriñ Ousseynou daf may wax ne nañ ko ko wax buñ ko ko waxee mu disponible dafay dikk moom moo wuutu baayam ci loolu le ànd ak Pape Diagne Njëgën ñooñu ak ñi ñu àndal ñëpp ñoo yor gétt bi mooy nag yi kon waa service d'hygiène waa waa élevage waa élevage bi ñoom ñoo yor loolu le ndax nag yi war nañ leen a saytu bala ñu leen di rey bu leen rayee ba pare après abattage waa war nañu ñëw tabaarakallaahu seet ndawal li ndax consommable na wala war nañ ko lekk wala waruñu ko lekk mhm. loolu ñoom ñoo ko yor ci wàllu gàmmu gi mhm. nga gis ni gàmmu gi pàcc boobu tamit tabarakalaaw dafa bokk ci volet organisation mhm. am na itam sécurité mhm. sécurité nos forces dégg nga de sécurité et de défense surtout foofu parce que gis nañ ni euh, jouru gàmm Thiès day doon benn carrefour boo xam ni uh-huh. am na ñoo xam dañuy ñëw kër maam élage gàmm uh-huh, uh-huh. ñii Medina Fall gàmm ñu jubali ba Tiwaawan kon sécurité boobu euh, daanaka lu war a mën a mat la carrément ah. rawatina fi nga xam ni moo di mmh. biir Kër Maam El mmh. ndax gis nañ ne bu ñu passé euh, commissariat central rek da ngay jël sa euh, euh, sa droite waaw sa droite ngay jël dugg biir Kër Maam El Hadj mmh. daal di continuer noonu dafa mel ni waxtaan ngeen ci ñi nga xam ni ñoom ngeen ci war a waxtaanal waaw waaw waxtaan nañ ci ak ñi ñu war a waxal maa ngi remercier tamit chef de service yooyu yëpp. Mhm. di tamit euh, force de défense et de sécurité. sécurité oui. la gendarmerie. Mhm. la douane. Mhm. la police. les sapeurs pompiers. waaw. service d'hygiène. jeunes et forêt. gis na ñooñu ñu ngi def liggéey bu doy bu plan de circulation

ak nit euh, ñi mën a circuler carrément surtout surtout surtout ci parking bi daanaka da sax xam ni sama lañ uh-huh. gis nañ ñi bu njëkk nit ñi dañ daan ñëw rek gaare fii tëj ci mm. tëj kële te des fois di nga am benn malade boo xam ne war na mën a dem hôpital ñu gis ni uh-huh. am na yenn euh, yenn taxawu mm. ci oto yi mm. tey dañuy baare tey ji boo ñëwee mm-hmm. euh, fi nga jàpp ni foofu ngay foofu nga taxaw mm-hmm. xëy na tëj nga koo xam ne tey jii bëggoon naa dem ci poste de santé bi mmh. te du mën a dem mmh. loolu tamit dafa mel ni jël ngeen ci ay jël nañ ci matuwaay bu baax a baax puisque euh, euh, ku ne xam na ni am na ay laissez-passer yoo xam ne nii defoon nañu ko que jaxate jaxate Bakary jaxate mmh. ah. ak Abdou Dieye Abdou Dieye xam naa nag am na ñu xamul tur Abdou Dieye bi mooy pett Dieye na ngeen ma baal ci tur bi waaye ñu bari dañ koy xam damay bëgg ñu xam ko <laughs> waaw xam ngeen ñooñu ay homme de tenue lañu parce que armée la ñu nekkoon yàgg armée liguey armée ba retraité xam bu baax ñooñu lañu mettre en relation avec la police et la gendarmerie ak douane ak yooyu yëpp ñooñu ñooy liguey ñooy xol plan de travail bi yi ñu soxla yëpp it ci walu wowo ñom ñoko yott comme ñom ñooñu set nañu parking yi nga xamanteni dañ ko wara parker n'importe comment n'importe où n'importe quand la ñuy la am na ay parking spécial mhm. yoo xamante bi ne trois ba quatre parking yoo xam ne ñu ngi koy xool ñoom mhm. buñ ci demee ba nga xamante bi ne jubóo nañ ji mhm. dañ ci wax ak police bu ko defee tabaarakallaahu yooyu fa la ñuy parqué yi waaye léegi dañuy tere booba oto yi du dugg ba ci biir kër gi mais am na yoo xamante bi ne ay kilifa lañu bu ñu ñëwee yor ay laissez-passer war a gis sëriñ bi ñoo ñu mën nañ leen a maye ak seen ñu yegsi ba ci biir kër gi donc wàllu sécurité ñooñu ñoo ko yor am na itam ci cellule euh, cellule bi tamit organisation lu mel ni Njawar Saw mhm. moom lépp lu jëm ci tente lu jëm ci bâche mhm. lu jëm ci chaise moom lañ ko jagal ci biir tente bi lu koy jagal loolu ci loxoom lañ ko teg mhm. moom it mu ànd ak tabaarakallaahu euh, pas-pasam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax kon moom volet boobu tamit moo ko yox am na wàllu trésorerie muy wàllu xaalis suñu bàyyi Badara Ndooy taalibe la police centrale la nekkoon. lépp loo xam ne luy dugg la ak luy génn lépp ci loo xam lañ ko teg. kon moom moo yor lool am na secrétariat bu am doole itam. monsieur Boy Pape Boy. ak Moussa Ciss. correspondance yi dem yëpp ñoom ñoo koy bind. ñoo koy bind mu jaar ci ñoom mu jaar ci ñoom. ñooy saytu affaire yi yëpp tamit. bu ñu paree sunu sunu état de besoin. Mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ñoom ñoo koy xool saytu ko. pour bu ko defee tabaarakallaahu ñu mën ko mën a yóbbu. Mm-hmm. kon ñoom itam ñoo yor loolu. Mm-hmm. ku mel ni Lama Diène ci UCG mooy ca la bokk kon nga gis ni cellule de communication bi ñun itam. Mm-hmm. ñun ñoo ko yor. waaye ànd ak ñu bari. ànd ak ñu bari parce que li ñu fi wax lépp dafa large. billaahi ñi ci nekk ndàgg mi ci la bokk. cellule de communication ci la bokk. oui El Hadj Modou Diop. ci la bokk. kii nga xamante bii ne tabaarakallaahu euh, moom mooy Ndeye Khady Fall di doomu Abdou Fall loolu la jàng. ci la bokk xale yi kër gi tamit ñu ngi ci yëngatu ñëpp. ci cadre boobule. Mhm. ay maxtaar mbay ay ku mel ni tabaarakallaahu euh, papa mhm. ñoo ñu ñëpp dañoo étoffé wu ci loolu. Mhm. ànd ak man ci loolu. ñu àndandoo di liggéey di yëkkati di tegandoo. donc nag cellule bi tabarakàlla ñoom it gis nañ ni macha allah ñoom ñu taxaw lañu ñu ngi góorgóorlu macha allah tabarakallaahu kon communication. bokk na ci biir loolu defe naa ni. bu ma juumul. ñooñu ñoo constituer li nga xamante bi ne nii. moom euh, euh, euh, euh liy liggéey ci gàmmu gi. Mhm. coordinateur bi nak moy Serigne Ahmed Ndiéguène. moy mhm. coordonné lepp kon su ko defee. loolu moom mooy cons cellules yi nga xam ne bii ñoo nekk ci bi gàmmu gi pour liggéey inshallah machallah mhm. amna solo bu baakha baakha baax mbokk yi di leen fàttali ni yéen ngi sur la chaîne 24 TV muy l'invité du jour l'invité du jour nag comme ni ma len ko waxé day dalal. euh ci nekk ci culture bi ki nekk ci politique bi ki nekk ci religion bi kenn ku ci nekk rek foo nekk fu nekk rek jàpp naa ni am nga ci am nga ci xalaat am nga ci gis-gis ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ni hmm. mooy actualité li nga xam ni moom nga bëgg ñu waxtaane ko hmm. macha allah dinañ ko yaatal bu baax tey maa ngi dalal ki nga xam ni mooy sëriñ Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène hmm. ah nekk ci cellule de communication suñu kër maam Cheikh Ahmed Baro Ndiéguène bu ko defee bu ñu jógee foofu gis nañ il y fan yi la ci euh, fan yi ci gannaaw ngeen amal benn CLD Euh, lu wund woon ni mel. waaw bala ma lay tontu ci loolu. Abdou Gueye tamit Abdou Gueye. Abdou Gueye Abdou Khadir Gueye. dara mhm. ki sëriñ bi. Mhm. moom lañ jox oto hydrocureur yëpp hydrocureur yi nga xam ne ñooy manque. parce que assainissement bi presque genn wàll gi gars yi dugal nañ ko ci ONAS. ci ONAS bi pour mu. waaw branchement bi mais am na yu des. mais am na yoo xam côté yu mu ah. dese. du tee nag bu gàmb gi ñëwee. Mhm. yi nga xamante bi ne mooy hydrocureur yooyu Abdou Gueye lañ ko jox ak Cheikh Gueye.

kon nga gis ni dal wàll woowu tabarakallah tabarakallaahu mat na. Mhm. def nañu réunion yoyu puisque. CLD Kër Mamalaaji. Mhm. ñoom autorité administrative dañuy wax ni organisation bi nekk Kër Mamalaaji gisunu ko fenn. waaw parce que. gis nga sank bi ngay wax. ci cellule de communication pàcc yi nga xam ni amna ci yëpp boole ci euh, ci méthode de communication bi nga bi nga xam ni moom ngeen di utiliser. Mhm. wax dëgg fa yàlla duma ni gis naa ko fenn mais tamit. dëgg la

Euh, euh, branche Il yi ñu bëgg. waaw mu bind. ñu mhm. wax ko li ñu bëgg. Mhm. mu mhm. ci ki nga bi le préfet du département. waaw waaw muy jaañ. bu ñu bu ñu ci nak hmm comité bi yépp day en ak yi ma la wax dañuy ñëw. dem nous, nous ñu dem def euh, réunion. Ah. CDD. CDD le sous préfet. et le préfet. Mhm. moom it day convoqué mbooleem ñi nga xamante bi ne ay chef de service dañ nga xam ne mhm. dañoo nekk fii Thiès waa Sonatel dañ leen di woo mhm. service d'hygiène dañ leen di woo police gendarmerie yooyu yëpp dañuy ñëw waa Ageroute yi dañuy ñëw waa Sen'Eau dañuy ñëw mbooleem chef de service yi fi nekk yor ndox mi ñu yor li nga xamante bi ne matt yeeg yëpp ba ci douane ñëpp dañuy ñëw ñu toog fekk na ñun defar nañu sunuy kayit yoo xamante bi ne yëpp dañ koy bind ay brochure mhm. wax sécurité li mu bëgg mhm. wax li santé bëgg mhm. wax communication li mu bëgg buñ ca yeggee ñooñu dañuy wax ñoom fekk na yëpp yor nañ seen kayit yi nii di ko liir xam leen li mu wax lan ngeen ci man ak lan ngeen ciy def ñoom ñu jóg intervenir daal di wax ñun bu ñu waree yokk ñu daal di yokk kon nga gis ni liggéey bu rafet boo xam ne chaîne lay doon way moom la ñuy def bu ñu demee waxtaan ak ñoom

sous préfet ñoo koy nekk. sous préfet waaye bu ñu ñëwee day ji. ñu def CDD. CDD bi sous préfet bi mooy ubbi di liir doléance yi. Mhm. ñun li ñu bëgg. waaw état de besoin yi. Mhm. ñun ñoo ko moo koy liir mhm. liiral ko préfet préfet wax ko ñu jàllale ko ci ñi nga xamante bi ne ñoom ñoo yor. Euh, euh, euh, chef de service yi. ñu wax seen engagement. suñu ñëwee nag ci CRD bi nag. CRD bi sous préfet. day noppi préfet mooy jël. lire le gouverneur bu lire le gouverneur li fi xew ak li fi jotta def ak yi manke gouverneur interpellé ñi nga xamante bii ne ñoom ñooy chef de service jox ñu ñun ñi nga xamante bi ne ku ci nek sa cellule li nga ci soxla waxal nga wax say état de besoin yëpp ñu set ndax yooyu def nañ ko ak defuñu ko ak lan mo ci dess bu ko defé gouverneur ñatt leen ñom itam saña xal leen bañu def ni def lolu mom moy CRD def nañ ko ndax euh ñu ngi njëkk def CRD bi -hmm. avec le sous-préfet. Ah. le 26. lañ ko def. le 26 27 septembre. Ah, ah ci lañ ko def. Mhm. dégg nous euh, def nañu li ñuy réunion CRD bi le 30 bi passé. Mhm. ci lañ ko def avec monsieur le gouverneur. Mhm. ak ki yëpp ba wax wax deug na yalla dal amagum nañu. amagum nañu. satisfaction ci sen engagement yi nga xam ñom ñoom nañu ko ñom ñep presque dal machallah waaw. léegi nag daanaka bu fekkente bii ne lii yemb na nag ah tabaarakallaahu mu ngi noonu mhm. bu ñu defee beneen phase bi daal ci dem waaye daal loolu ñu ngi ci bu baax a baax a baax loolu ñu ngi ci loolu ñu ngi ci bu baax a baax a baax daanaka xam naa dañuy ñëw ci euh, yegg rek euh, ci ci pandaw li waaw muy euh, ki nga xam ni moo di xalif bi woote wi nga xam ni mu ngi koy woo taalibe yi ñi nga xam ni ñu fas yéenee gàmmu si ak ñi nga xam ñoo di dëkkandoo yi Tay eh, ñooñu bu amé kàddu goo xamni ñu leen koy ñaaxé parce que ñaar ñi ñoo ci am wala bo né ñet muy kan ki nga xamni da fay ñew pour dam ci ak ki nga xamni mom mo koy dalal mhm. surtout lolu waaw waaw waaw ah, lolu dafa am solo ndax ke mo wala jëwul borom mom dafa naani dalal gan mom tam nañ ko ndax alaaji mut borom mo meloon noonu mhm. ndax gis nga ni ties mo fi jëk waaw ci kilifa diine am ci titre foncier bu yaatu bu mu moomal boppam bokk ko kenn waaye wëlbatiku daggal nit ñi ne leen ku ci nekk ku amul foo dëkk amuloo mooy dund amuloo mooy tudd amuloo mooy dëj sa sa ñëwal fii man sama mbir daal moo di jaamu yàlla kese ku nangoo jaamu yàlla ak foo mën nekk ñëwal fii dinga nga lekk di naan dinañ la dëkkal bu la nexe nga dëkk fi moom ba dee bu la nexe bo mané nga dem philosophie boobu moom la ñu dund alaja man jigéen ak rakam instauré ko ba sëriñ muniru tabarakallah yàlla ko yàlla yagal mom itam nekk ci loolu moo ki rakkam ci philosophie bobu kon li ñuy ñaan gani ñu daan def ubbi seen kër yi ubbi seen néeg wàcc seen lali yaatal seen xol yi comme nañ ko daan defe kal aada xam ni gan yi seen i gan lañu ganu yonent bi salaay salaam du yufu rahman lañu ay duyuufu rahman lañu maanaam ay ganu yàlla lañu pourquoi ñu doon ay ganu yàlla dañoo ñëw ci ki gën ci yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci guddeem ñu di ko màggal mu ngi mel ni kon ku dem màkka rek waaw kon dañuy yaatal bu baax a baax a baax a baax da seenee dalal gan yi jàppale leen ci zahir ak ci batin sëriñ baa ngi koy woote ñi nga xam ne ñooy wàllu chauffeur yi waaw surtout def ndànk sëriñ bi ñaanal leen leen bi ñu demee ci CRD waxtaan nañu ak kilifa yi ñu yombalal leen contrôle yi waaw muy ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew Mauritanie wala ñuy jóge Gambie wala ñuy jóge Niger ak yooyu yëpp di indi ay suukar di indi ay nangam ñu yombal leen ñoom douane bi. Mhm. bu fekkente bii ne hydroculeur yi la bu ñuy roñ di dem di tuuri police bi dina leen yombalal seen accès ñoom itam. Mhm. gendarmerie tamit dina def jàppandal bu baax a baax a baax. Mhm. eaux et forêt tamit passe bi ñu daan am pour ñu mën a indi matt mi tamit loolu itam. jàppandal dina jàpp kon nag dawal bi ndànk lañ ci bëgg. تبارك الله امنا تبارك الله مبير يو خامتي ني نين ньоكو توپ فوف سونو بوب كون لا ني داف دانك تا خامني جام يالا بيس باغي نونو نين تي غور غور بو باخ سين داغي نيانال نييب نا سين داغي گيرم نييب دي گيرم اي راكام نييب سين حسين ني ميغي گيرم نيغا خامتي ني ño and ak mom ci mbir mi ndax mbolem reunion ñi wëd di tenir ku tolni chaque mercredi dañuy reunion ci résidence Chaque mercredi bagam gi di dem ci résidence bi waaw ci résidence bi chaque mercredi ñu daje fa seet li ñu war a def ak yi ñu war a dox ñoo nga ca ci def ba fu ñu toll altine war nañoo taseeg ñi nga xamante bi ne mooy waa UCG yi UCG incha allahu ñëw def ak ñoom réunion sensibiliser nit ñi ci mbalit mi xam ne mbalit li muy indi moom mooy ay microbe microbe yi ak par rapport ak nawet bi ak tàngoor bi li muy jur ay jàngoro rek lay jur yooyu yëpp war koo wattu xam ni ñoo ko moom pour suñu bopp la kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di kontaan bu baax a baax a baax di mm-hmm. invité tamit di gërëm euh, waa presse bi yëpp d'une manière générale mm-hmm. waaw di nga di nga leen ma bu baax tàmbale ko ci yéen ñii mm-hmm. seen 24 parce que yéen suñu partenaire numéro un CRD yi ñu def CLD yi CDD yi yëpp da ngeen ànd ak ñun waaw <laughs> di ñu jàppale uh-huh. ànd ak ñun tamit ñu ngi waajal li nga xamante ni ne mooy mooy burg bi. Mhm. incha allahu waaw thème yi tamit tasaaro nañ ko. waaw yi ci war a waxtaan ñëpp jot nañu sëriñ As defar na ko ku ci nekk ci ñoom jot nga. dressé nañ ñi nga xam ni ñoo war a mën a waxtaan ci fukki fani burlu yi yëpp yëpp. ak ku nekk ak sa thème mhm. man maa koy ubbi te macha allah tabarakallahu mhm. kon macha allah yëpp yi def naa ni euh, ñaan yàlla rek dugg ci jàmm. te itam plateau yi ñu daan am ci ngent. yooyu dañ ko amalaat yaakaar naa ko ndax loolu ñu ngi leen koy ñaan dinañu ñaan préfet pour plateau yi ñu daan teg ngeen noonu ah, mooy ñu daan def ci rond-point yéen a koy def yooyu noonu waaw uh-huh. dinañ ko defaat bu soobee yàlla ren incha allah ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax gunge ñu tamit ci direct yi uh-huh. direct yi ngeen daan jël tamit waaw ci burdu bi uh-huh. incha allah loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax defe naa ni daal Euh, yëf yi daal mu ngi noonu. <laughs> te doo gëm na ci yoon ñaan yàlla yàlla mottali ñu rek. macha allah mën a yeggale jàmm. am na solo am na solo bu baax a baax a baax daanaka bu ko defee xam naa ni. waxtu wi xëj nañu en plus gis nañ ni sunu borom mu ngi wàcce xéwal <laughs> ñu jub ci weeru gàmmu ah, eh, di di def préparation gàmmu sunu borom di eh, def xéwal bu ni mel ñaan yàlla daal mu taas ci réewum Sénégal yàlla def ci jàmm ndax soxla nañ ko ci jamono ji waaw puisque sunu tem ndemu ren bi waaw surtout bu cellule de communication bi ak organisation gàmmu bi mhm. mooy li ñu tuddee paix jàmm stabilité à cohésion sociale. ndeysaan. Et stabilité cohésion sociale. Nous mhm. jàmm ak dalum réew cohésion sociale ñu ba rabat de yi. Mhm. ba am. am. dal temu bi C'est dinañ ci plateau Amam solo. Mhm. incha pour wone rek réew mi jàmm la xaj jàmm ci jéggalante ci la xaj dimbalante ci la xaj jàppe ku ci nekk sa bopp comme sa morom comme sa bopp mhm. loolu ci lañu xaj waaw man loolu lañ ci bàyyi woon la ma góor ga daan wax rek nee na ma nit ki mhm. nit koo gis jàppe ko ni sa bopp waaw loo amoon ci yéen ak safaan boo ko xoolee ni sa bopp doo ko def jëmale ci moom te gis nañ ni tolluwaayu Sénégal jamono ji fi mu toll nii nii nii mhm. ne ñepp yeenante jam wallahi ñu ubbi xol yi mm-hmm. def ci yermane mm-hmm. japp ñepp ni mm-hmm. suñu bok deug la comme limay wax tout temps rek suñu kilifa yi ñom lañ fi am comme tay te mu gàmm gi bu ñëwee ak fi mu coïncider ñu gis ni euh, état bi mu ngi ci dernière virage bi nga xamni mu ngi ciy def li ñuy juk moy lan élection présidentielle 2024 kon temu mu gàmm gi bu doone jam rek tabar fa day doon waaw day doon ci ayib fekk xam nga jam Mm-hmm. réew mu amul réew mu du mën a pérenne wallaahi xam nga lu tax mm-hmm. ñu investir seen xaalis réew mu am jàmm la soxla benn waaw waaw waaw te nit ki bu amul jàmm mënul jaamu yàlla dootal dara dañu ko laaj génn góor gu baax maam Serigne Touba mu ne jàmm daal gisul lu ko gën fii gisul lu ko gën fële wallaahi waaw sa maam Alaaji ma Ndiéguène daan wax ne bopp bu tuuti te am jàmm ah, ah, moom bu rëy bu toll ni bu rëy mu toll di mitti borom di mitti kon jàmm ci la lépp nekk kon nañu ñaan jàmm jàmm nag pour am ko da nga koy dox da koy wax da koy wax de jëf ko tamit ah, waaw da koy dox wax ko jëf ko mhm. ñu di ko jëfit ci suuf di ko jëf ca kaw waaye di wax prôné jàmm ci kaw mhm. di taal ay ci suuf mhm. baaxul baaxul loolu baaxul am na ñoo xam ne fitna rek la ñu bëgg te al fitnatu ashaddu min al qatli billaahi du yem na koo ko teg rey nga ko te deewul wallaahi al fitnatu akbaru min al dégg nga dégg nga tamit akbaru euh, euh, euh, dégg nga xam nu mu koy waxee ndeysaan waaw kon mm. fitna yi tamit uh-huh. akbaru min al qatli moo gën a rëy sax rey tamit mm-hmm. kon fitna baaxul mm-hmm. bu ñu ko yee

di jëlee ñu ëpp doole jéggal ñu néew doole. Mhm. ñu néew doole yi tamit boo defee bêtise bu ko defaat. Mhm. su ko defee ñun ñëpp ci jàmm la ñu xaj. Mhm. yàlla ñu ko yàlla defal. barke yonent bi sallallahu alayhi wa te mu ngi noonu sax euh, fi nga wax sànq fu am solo ndax sunu euh, ndax Seydina Muhammad. bi mu gënoo euh, bi mu gënee adduna. Euh, gaynde yi sax dañ daan romb. tilli yi waaw ak bëy yéeg yooyu. di leen raay di leen fon di dem. waaw jën yu mag ya daan lekk hmm. jën yu ndaw yi ci biir géej gi. waaw lekkuñu kenn. Hmm. kon loolu rek. exemple la. sëñ bu rëy la ah loolu rek nit ñi dañ ci war a mën a bàyyi xel. Ah ah rawatina nekk euh, sunu kër maam Cheikh Ahmed Baro Ndiéguène. Hmm. ah thème bi doon li nga xam ni moom la sunu papa Ahmed. Sall wax léegi léegi di ñaan yàlla jàmm Sénégal yàlla defal ñu jàmm ci barke Seydina Muhammad ndax lu dul jàmm jàmm ko gën mhm. te gis nañu ressources yi nga xam ne mu ngi commencé di jibbi ci sunum réew mhm. kenn ku nekk rek teg nañu bët mhm. gis nga nit ki bu la ñeewut amul ci yow benn intérêt yaakaar naa ni du la xool du la tëgg ñi nga xam ni nekk ñu ngi ñuy ruux wala ñu ngi xam ba lépp lépp bëgg li nga xam ni am nañ ko ñun ñoom ñu ñëw bu ñu amee xiiroo ak ŋaayoo ñu mm-hmm. jaar ci suuf jël li nga xam ni moo di suñuy ressource mm-hmm. kon boog nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a mm-hmm. baax tey nag li ma leen ko wax rek l'invité du jour maa ngi dalal ki nga xam ni moo di euh, Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène am mbégte contentement bu baax a baax a baax ah ci waxtaan yi xam ni waxtaan nañ ko kontaan naa mooy itam <laughs> parce que ki lay dalal ni mu la dalale rek noonu ngay doxe waaw yow da ngaa saf xorom <laughs> mën a sañse xam àddina dégg nga loolu lu ma neex la <laughs> waaw yow yaa yow yaa mel noonu gis naa léeg-léeg nga jël sa peñe <laughs> defaraat kii yëpp dafa tamit noonu la ko bëggee ah, sunna la noonu la ko bëggee sunna la <laughs> sunna la waaw mu xaw xiis ba mu ñëwee di ko di ko di ko di ko jox ay ay ay uh-huh. bokkoon na ca peñe waaw waaw peñe mm-hmm. waaw jox ko docteur mm-hmm. ah mm-hmm. jox ko jaam ndeysaan waaw uh-huh. waaye tabaarkallaa gis nga ko mu delloo docteur ba ne leen delloo leen docteur bi puisque ñun philosophie bi bi ma bi ma yàlla inspiré ne nañ ci nañ ci dunde uh-huh. façon boobu bu ko bu ko njaboot gi dee dunde kenn du feebar ndeysaan mu ñun du ñu lekk lu dul dañoo xiif uh-huh. te duñu lekk ba suur uh-huh. te duñu boole ay ñam te loolu ku koy def rek da ngay da ngay wér waaye lekk gu bari boole boole ñam nelaw yu bari na lay indil ah, waaw waaw nelaw yu bari deret yu bari la yu bari tamit tabaarakallaahu feebar rek lay indi ah, kon nit ñi koo fi gis ñu naan la sëñ bi day njëganaayoo ay michu yeeg ay nangam ak nangam climatiseur yeeg yooyu yooyu yu ëpp yooyu bu koy nit di def bariwaan na guddi gi nga ñàkk koo mën a màng parce que yooyu dafa dafa doon noonu jaamu yàlla <laughs> waaw climatiseur bu sedd guyu biir bu fees dell tëdd rek biir ak ganaar mhm. ah mhm. bi nelaw rek ngay def làmb sa boos xaalis bari na ah, loolu moom ah. fu mu tase da ngay dal sa xel day dal ah waaw waaw waaye nag yàlla ñu yàlla defal loolu itam uh-huh. waaw incha allah yàlla yàlla barkeel mm-hmm, macha allah bu baax a baax a baax macha allah am na solo bu baax a baax a baax xam naa moom dañuy uh, nder uh, nder kàpp li nga xam ni uh, moo di émission bi di leen wax ni rek ñu ngi jub guddik Seydina Mouhamed mm-hmm. innama bu istu li utan bi maqaarimal axlaq mm-hmm. Seydina Mouhamed bi ko bi ko sunu borom di tagg taggewu ko ci waajur taggewu ko fenn mais ci jikko ji te bi mu koy yabal ci nit ñi dafa ñëw pour mu defar jikko yi kon bokk nañu xoolaat bu baax sunu jikko di roy ci moom mi nga xam ni moo di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ca mu ngi noonu mbokk yi di leen euh, wax rek ñu nekk ci wàccaayu gàmm gi nag ñu nekk ci wàccaayu gàmm gi waaye di nuyu ndek euh, cellule de communication bi nga xam ne fi laa bokk muy ci diwaanu Ndiassane xam Hamza Kunta ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Ndiassane ñoom tamit ñuy def wàccaayu gàmm euh, muy ngént ak Seydina Muhammad bu ñëpp dee gàmm ñu ànd ak ñoom gàmm mm. bu ñu gàmmoo ba pare nag ñoom ñu fas yéene ngénte Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam muy cellule euh, de communication bi nga xam ni ñoo nekk biir Ndiassane Serigne El Hadji bu Bekkaay ah fàttewuma Serigne Hamza Kunta fàttewuma ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir cellule bi di ñaanal euh, Cheikh bu Sidil Maxtaar yàlla sàmm ko bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam ci barke yonent bi ak Serigne Babacar Sy Mansour moom tamit ak ki nga xam ni mooy di Serigne Mountakha ak ñëpp ñi nga xam ni ay kilifa diina lañ waaye ndek euh, di ziar ndek sama euh, sama Serigne sama xarit muy Serigne Omar Ndiéguène doon koo xam ni moom sama xarit la mm. fu ma gis dara ma sama journaliste taxaw mm. Mm. day sànn xool lay génn buntu këram su ma koy romb bu gisee moom day bàyyi lépp muy Serigne Omar di sama xarit mais di di tamit way juram kan Serigne Mouhamadul Munir borom ñaari khilafa yi. Hmm. di ñaanal wér yalla sam ko bayiko fi ba ci kanam ak kanam ak kanam ci barke sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam defal ko wér gu bare bare bare bare ay ci bu ko defé kon euh, l'invité du jour mu ngi woon noonu tabaar di len jox dox dajé fi ki fan inshallah ci benen ci benen émission bu euh, bu nara a neex macha allah ay ci lay sëy moo fi nekkon ma ngi nan fess ni mes baye glace 24 TV mu continuer liguey bi merci beaucoup